jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi yëpp ñu ngi toog fii ci kër Cheikh Mouhamadou taxa mi nga xam ne moo fi Serigne tey ñaan mu yàgg fi lool tam ànd ak wér ba naaj yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu bor may ko kàttan ak wér lépp mottali ko nu mu ko bëggee kon ñu ñëw fii ci ndigalam ngir yëkkate kàddu yi ñuy bëgg a wax. yàlla def barki démb sax la ma ko jikkoon wax ne naa ko jot li bokki taalibe bi waaye moo tombé bisu Kazu Rajab ba démb ci timis mu waxaat ma ne naa ko wax tey ba yàlla dogal ndigal lii def si ñu tey mu ne kon naa boole yëpp jëme ko ci ñëpp la ci jiitu nag mooy ni mu ko waxee woon rek mooy ñëpp toroxluwaat dellu ci yàlla tuub jéggalu suñu boroom ngir lii nga xam ne suñu borom def na mu tàbbi ci àdduna si. tàbbi ci biir Sénégal yàlla mi ko fi indi te muy mbindaaf comme ñëpp yàlla jëliwaat ko fi mu fàttali ñu bu baax nag la Serigne Touba waxoon ba peste ba ñëwee ci njaarim ba ñëwee di ko ci ñaanloo te leen waxoo leen yàlla suñu borom mi ko fi indi waxtu ko jeexalee rek dana jeex ba bis xam ngeen histoire ba ñëpp noonu jëme day gudd waaye moo xëy ne suñu borom xamal na ma ne jàngoro jooju fi indi woon yàlla jëliwaat na ko fi. mu tàggoog ñu kon nag sëriñ bi nee na mi ngi teewluwaat moom it rek di ñaan suñu borom mi ko fi indi mu jeexal ko di fàttali rek nag li nga xam ne waxoon na ko fa lii mooy li ci lislaam santaane nee na kon loolu ñi nekk bitim réew ñii di ay jullit ñii di ay mbokki taalibeem mu xam seenu njàmbaar ak yërmaande jëm am ci ñoom xam la ñuy dund fañ nekk nee nañ xam ne fàttewu leen ñoom ñëpp mi ngi leen fàttaliku di leen ñaanal suñu borom defee leen jàmm musal leen ci. ba ñibbisiwaat jàmm ñi nga xam ne yàlla def na itam ñu jot ñëw ci biir réew mi nee na ku ci accepté koo xam ne ñëw nga ba ci biir nee na na nga dem seetlu sa bopp ndax moo gën jàngoro ji di gën a law di wàlle ndax addis bi dafa wax ne laa darara wala dirara kon noonu lool nee na lool mu ngi koy fàttali ñëpp ku ci accepté nga fexe ba dem ca ñu war a seet ñu xool la ba xam ndax tekkiwut na ku jóge bitim réew ku nekk loolu dalaa dal waaye mi ngi koy fàttali ñëpp nee na itam mi ngi fàttali ñëpp itam dénkaane bi nga xam ne bokk na ci sëriñ bi mujj wax ci njaaram waxoon na ne yéen a ngi jëm ci jamono joo xam ne yett ci tax a mucc noppi jekki jaamu yàlla nangoo liggéey doyloo nga am doyloo la nga am muy muy juróom yëf yi nga xam ne sëriñ Tuubaa daana ko santaane neen lool nag jamono jii ci raw kon nee na ñëpp mi ngi leen koy sant lépp loo xam ne daal dana musli ci jàngoro ji wala dana tax muy muy muy wàlle képp ku ko mën a wattandi ko ko def te la ci des lépp nañu delloo ko suñu borom la ca dellu ko waat nag mooy nee na mi ngi sant bokk jullit yi di sant bokk taalibe yi rawatina nag njabootu Cheikh Mouhamadul Fadel di ko teg ci loxol sëriñ Aboul Barka mi nga xam ne mooy kilifa kër ga ndax bi nga xam ne màggal gi ñëw na fi mu ñëw ba ci moom waxtaan ak moom la mu waxtaan ak moom ba sëriñ bi wax ko kàddu mu ko wax mu wax loo ko Cheikh Ahmadou Badawi mii mu wax ko àdduna sépp jëfandikoo ko sëriñ bi nee na mi ngi ko ci sant di ci sant mboolem njaboot Cheikh Modou Fadil di xam ne eh, loolu rek lañ séntu ci ñoom ndax ku tudd Cheikh Modou Fadil sax dem ci bu bientu bu nu wëtee bil waaye nag dëggal nañ ko ndax la ci gën a yéeme wax naa ko ba démb njabootu Cheikh Modou Fadil gépp kenn ku ci ne dangaa dugg ci sa néeg bu gën a ngir bañ nit ñi gis la jàng alxuraan jàng xasida teraanga yi ñu tasaare ko ci dëkk bi kon sëñ Yaxma sëriñ bi nee na mi ngi yóbbanteem ñëw ci sëriñ Abo ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm ngir xam na loolu itam xam na ni yéen a ko bokk ndax bu leen di sant eh, da leen da koy jotali rek waaye cant ga moom ci biir ndax bu leen sant rek sant na boppam la ca desaat nag kon mooy kàddu yi nga xam ne war naa jëm ci xew-xew bi nga xam ne moo xew fii jamono toll ndax sëriñ bi nee na mu ngi fàttali ne. suñu borom dafa wax ci alxuraan atiiwu llaaha wa atiiwu rasuula ulil amri minkum moo tax dañoo xam ne ci biir àdduna lañ nekk am ñu ñu ñu fi bokk ñu fi bokkal dëkk ne ci biirum réew am ñu fi bokkal dëkk kon nag lépp loo xam ne war na nit ci kum bokkal am réew war na di ci koo xam ne bokk nag nit ci dëkkandoo àq joojee dañ ko war a sàmmonte ngir loolu mooy li nga xam lislaam santaani na ko loolu nag ay kàddu la yoo xam ne Euh, ñi ko war a leeral li nga xam ne sëriñ bëgg na ko ni ngir bañ kenn di loroo fii ndax fii moom sëriñ Touba lam ñaanoon suñu boon defe na ko ko woon fi la ba wal balaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha kon moo suñu xeddal